un référendum euh, est-ce que c'est opportun à l'état actuel des choses parce que euh, Sénégal dañoo baaxe en tout cas depuis Wade régime yi ñëw yëpp def nañ seen révision constitutionnelle Wade l'a fait en 2001 Macky Sall l'a fait en 2016 16, oui. suñu armature judiciaire euh, fi mu toll euh, soxlawaat nañu un référendum bon xam nga tout dépend de la vision de ceux qui sont élus. Moi, je n'en fais pas partie, ceux qui sont élus. Ceux qui sont élus, quelle vision ils ont de notre régime politique Deux possibilités. Soit ils considèrent que le régime politique bi ñu am depuis l'indépendance amul rupture amuñu coup d'état constitution bi bi ngi marché normalement amuñu rupture électorale les standards démocratiques sont bons soxlawuñu parlement bi wuñu ko réformer parce que le Parlement il vote la loi contrôle l'action gouvernementale évalue les politiques publiques loo ci yokkati juri pouvoir judiciaire bi amul lu ci yokk on a notre armature judiciaire sauf nga ne damay def pour constituer à la place d'un conseil constitutionnel peut-être mais sinon le conseil les le... de la de la de mais la, justice. mais sauf que pour moi le meilleur hommage qu'on puisse rendre au conseil constitutionnel c'est quand même d'avoir encadré l'organisation pour moi c'est une de sémantique conseil constitutionnel pour moi c'est de la sémantique c'est le contenu qui compte soo neexee je vais augmenter je vais renforcer les pouvoirs du conseil constitutionnel donc pour moi on peut considérer que on a une bonne structure constitutionnelle une bonne architecture constitutionnelle matuñu la différence entre conseil constitutionnel et cour constitutionnelle. c'est une question d'appellation les français quand ils ont fait leur juridiction États-Unis choisir Cour suprême ñeneen choisir tribunal. ci contenu bi. ci contenu bi ku nekk lu la neex nga ci def le conseil constitutionnel dans la tradition française a moins de pouvoir que le cour constitutionnelle mais ces dernières années ont montré que le conseil constitutionnel français s'est aligné sur les cours constitutionnelles européennes donc c'est une question d'appellation il y a des pays où l'appellation c'est cour constitutionnelle te amul pouvoir yi nga xamante ni moom la conseil constitutionnel am. donc mais pour intégrer pour intégrer les assises les les les recommandations et conclusions des assises euh, de la justice euh, concernant le rôle du conseil constitutionnel concernant le conseil supérieur euh, de la de la magistrature soxlaawuñu référendum mun nañuy def. mën nañu non justement su fekkente ne nag moo doon deuxième hypothèse may wax dañu soxla ñi nga xam ne ñoom la ñu fal ñoom dañu am seen vision ne non ñun dañoo changer constitution bi dañu bëgg a def ay réforme constitutionnelles dañu bëgg a xoolaat pouvoir exécutif bi dañu koy organiser dañu bëgg a xoolaat justice bi loolu mun nañu ko c'est le droit ils sont élus ñoom lañ jox mandat mun nañ ko def mais damay wax ne man li ma gisee Sénégal mun nañu certes def un mouvement pour renforcer le système constitutionnel xool yi am ay ya mu amoon ay ay insuffisance ñu yokk ko mais gëwuma ne réew mi fi mu toll dañu war a defaat référendum non pas référendum référendum bi c'est après parce que loolu c'est juste la procédure une refondation de nos institutions comme may dégg nit di ko wax on n'a pas besoin de ça Macky man bi ñu xamante 2012 daf ne dama bëgg a confier réforme des institutions bi bi muy doog a ñëw waaw gars yi def nañu les assises nationales la CNRI et cetera xuma ma ne ko pour man Sénégal démocratie bi fi toll réputation bi am maturité démocratique bi ñu am soxla ñu defaat ay nouvelle constitution bu bees waaw daa fait la constitution 2000 la xoolal li ñu ci mën dugal yëpp on garde la constitution ce qu'il a mais la constitution yokk ci ay éléments renforcer le, les pouvoirs du parlement euh, les clauses d'éternité sur la durée du mandat du président sur le fait que le mandat ne peut pas être renouvelé plus de euh, plus d'une fois on a on en a fait des clauses d'éternité on a mis, on a renforcé les aspects de centralisation, on a renforcé les aspects de liberté, droits et libertés fondamentaux notamment, mais on a gardé l'architecture constitutionnelle. xam nga soo demee ay dëkk. mun nañ defaat une révision. pour intégrer les conclusions des assises. Euh, par exemple, de la justice par exemple loolu nag su la neexee da ngay jaar référendum su la neexee nga jaar à l' mun nañ ko def par le biais de l' assemblée nationale mun consensus amee. su consensus amul nag xanaa soo defee dissolution ba am une majorité qualifiée nga def ko foofu assemblée mais sinon passer par le référendum